ñeenti junni carte électeur ak lu topp ñoo ngay nelaw ca sous préfecture bu Dakar Plateau te ñetti weer rek a des ci élection yi. voilà donc il faut d'abord que ci biir loolu. ñu xamal que ne euh, retrait carte yi mosul taxaw. donc euh, am na carte yi fi nekkoon si njëlbeen mooy ñi kon imprimé mais il faut dire que yooyu bi élection yi jàllee yi passé daanaka kër kër retrait wuloon carte am presque. bon on ne voit presque pas ñu koy retiré as néew mooy ñu amal soxla ci ay problème passeport ñu war a tukki wala léegi dañu am problème ay au niveau des banques donc ci biir loolu stock ancien bi amoon nañ ñeenti junni carte ak ñaari téeméer ñaar fukk ñeent yoo xamante ni ñu ngi fa en stock euh, carte yu bees yi tamit jot nañu ñaari loo premier loo bi deuxième boo ko boolee mu ngi ci actuellement ñeenti junni carte ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent aussi alors ci biir loolu donc boo seetee actuellement nii euh, ci loo bi da nga xamante ne desoon na retiré nañ ki téeméeri carte ak fanweer loo bu bees bi ñu retiré si ñaari carte donc ça veut dire que ci bu ñu seetee carte yi nga xamante ne ñoom ñoo des bu ñu ma leen retiré ancienne carte yi des nañ ñeenti téeméeri carte ak juróom fukki carte ak ñaar yoo xamante ne maanaam ñoom ñoo des ñu war a retiré ensuite carte yu bees yi am nañ ñeenti téeméeri carte euh, ak ñaar ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar nga xamante ñoom ñoo des donc moom mooy li nga xamante ne mooy li nga xamante moom moo des ci carte noire moo ne joxe carte yi mësul dakk retrait carte yi mësul taxaw donc euh, am na carte yi fi nekkoon si njëlbeen mooy njëkkoon imprimé mais foo faut dire yooyu bi élection yi jàllee yi passé daanaka kenn kenn retiré wuloon carte am presque bo on ne voit presque pas ñi koy retiré as néew mooy ñu amoon soxla ci ay problème passeport ñu war a tukki wala léeg-léeg ñu am problème ay au niveau des banques donc ci biir loolu stock ancien bi amoon nañ ñeenti junni carte ak ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yoo xamante ni ñu ngi fa en stock euh, carte yu bees tamit jot nañu ñaari loo premier loo ba deuxième boo ko boolee mu ci actuellement ñeenti junni carte ñaari téeméer ak ñaar fukk ak aussi alors ci biir loolu donc boo seetee actuellement ni euh, ci loo bi da nga xamante ne desoon na retiré nañ ci téeméeri carte ak fanweer loo bu bees bi ñu retiré si ñaari carte donc ce qui dire que ci bu ñu seetee carte yi nga xamante ne ñoom ñoo des pour ñu ancien carte yi des nañ ñeenti téeméeri carte ak juróom-ñeent fukki carte ak ñaar yoo xam maanaam ñoom ñoo des ñu war a retiré ensuite carte yu bees yi am nañ ñeenti téeméeri carte eh, ak ñaar eh, ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar nga ñoom ñoo des donc moom mooy li nga xam te ne mooy li nga xam moom moo des ci carte yi ñu war a retiré fi ne nii commune bi Medina ak bu plateau ñoo ëpp si lii jël si seen i carte commune yi nga xam te ñu ko retiré mooy commune Medina ak commune Dakar Plateau donc mais pour commune Gueule Tapée ak Fann Amitié Point E c' est encore timide mais yaar communes yooyu moom vraiment souvent bu ñu amee ay taux retrait yu mag fa lañ koy amee. loolu ay habitude la donc euh, à chaque fois bu fekkente ne situation yu mel ni am na nit ñi dañuy xaar bi dañuy moment soog a ñëw jël seen i carte bon dañoo ne fu nekk nii tant que jege sewul politiciens yëgal alors donc euh, gars yi du jël si carte yi donc à ce niveau là ñu tàmm nañ ko mais quoi qu'il en soit ñu war a fonctionné. donc à ce niveau là ku ñëw pour jël sa carte bu fi nekkee di nga ko jël incha allah RAS pour le moment. jël si seen carte d'électeur bareeguñu ci sous préfecture bu Dakar Plateau ñuy fàttali ni lu ëpp ñeenti junni carte ca stock bu njëkk ba ñu nga fay xaar seeni boroom ba léegi.